conseil communal de la jeunesse bu Touba lancé programme ñu dëppee ko un dîner daara di bés bu yàlla sàkk ñu tànn benn daara jébbal leen ay reer ñu tuddee ko yàkku soxna may loole di programme boo xam ne day tàbbi ci xeexu jàngoro jii di coronavirus jàppale ñi nga xam ne ñoo nekkee ci daara yi ñuy bañ a am benn gàllankoor ci seen wàllug dundu door te dañ ko bëgg a def ba koor gi muy tey ji di àllarba dañ ko bëgg a door mooy maanaam chaque jour. dañuy jël ñetti daara yóbbul leen reer ci dëkk bi ñu ànd ceeg Cheikh Abdou comme ni mu ko waxee ak xale yi dëkk bi yëpp loolu moo waral tey woote bi ñu woote fii bu ñu jógee fii daara yi njëkk a dem mooy daaru la daarul xadim daara baxdaat ak daara Touba Aliya moom la ñuy dem tey mooy programme tey bi buñ ñu fa jógee nag ku nekk dem ñibbi bu subaa tamit am na pro bu ginnaaw subaa tamit am na benn programme noonu lañ koy toppee ba Eh, incha allah ba ba koor gi ñoo ngi ciy tàllal ñëpp nag programme lu boo xam ne amul xaj ak seen bépp bailleur boo xam ne sentir na ne bu ci dugalee sa loxo mu gën a dox rek ñoo ngi koy ñoo ngi ngi leen di tàllal loxo ci loolu. conseil communal bu Touba moo koy amal eh, tey la koy commencé ci njàppalu eh, ministre Cheikh Abdou Bali moom moo jël initiative boobu ñu waxtaan ci ñu tuddee aussi programme tamit yàkkub soxna may yàkkub soxna may bu ñu ko waxee dañuy delloo njukkal. soxna may mu sëriñ Touba ndax ñëpp xam nañ ni mu daan doxale ci dëkk bi ñëpp xam nañ nim daan taxawoo néew ji doole ñëpp xam nañ ni daan taxawale daara yi moo tax ñu ne léegi concept bi duñ ko tuddee leneen lu dul yàkkub soxna may buñ ñu waxee conseil communal de la jeunesse rek jàpp naa ne amul politique ndax xëy na ñëpp ci jeunes yi yëngu ci dëkk bi yëpp a ci bokk programme bi nag ñu ngi ko amal ci jàppandalul ministre conseil Serigne Abdou Bali Mbacké moom muy xamle ni objectif bi moom moo di ñu dundal lu toll ci ñaari junniy ndongo. ngir tàmbali liggéey boo xam ne dañ ko tuddee yàqub soxna may muy fexe ba fili ak koor gi lu gàtt gàtt ñu jox reer lu mat ñaari junniy ndongo dara loolu nag ñu koy def ak waa conseil communal de la jeunesse bu Touba. di leen sant aussi bu baax a baax ci seen disponibilité ak ki seen takku ak tàllal gi ñu tàllal loxo ñu ko ci ñun ñu nangul leen ko ànd ci itam nag ak mbégte mu rëy rëy rëy rëy ndax kenn ku ne xam na jafe-jafe yi nga xamante ni bi askan wi mi ngi koy dund jamono yi ñu toll ndax dem bi ak dikk bi wàññeeku na njënd mi ak jaay mi wàññeeku na lu bari taxaw na dong daara yi nag nekk ñoo xamante ne bii xëy na ñoo ci sax gën a loru ndax ñoo ci gën a néew doole ñu confiné leen mënatuñoo génn mënatuñu am dara fekk kon faw ay bon volonté jóg jaayante fekk leen fi ñu nekk jàppale leen dimbale leen kon loolu moo sabab lii moo tax nañu ko defe woon ci jàlbeen ga tey jii ñu di ko defaat ànd ko ak conseil bi ngir jàppale leen ba ñu mën a dundal donga daara yu toll noonu moo tey jii mooy bis mu njëkk bi waaye fas nañu yéene bis bu yàlla sàkk ñu def ko fii ak ca koor ga bu ñu demee nag ba àgg ca koor ga danañu toog def évaluation xool ba xam liñ ci jot a dox naka lañ ko defee seet ba xam ci biir koor gi aussi ndax koor gi dafa am spécificité boppam xool koor gi aussi naka lañuy dimbaliwaate daara yi waaye rek di ñaan yàlla ba nañu àgg foofu mbir mi jeex takk ci dëkk bi jeex takk ci Sénégal jeex takk ci àdduna ba kenn ku nekk mën a dellu ci say ci sa yitte. ministre conseiller bi di xamle ne donte jàngoro jii di coronavirus mu ngi reculer bu baax a baax fii ci Touba nañ wéyal xeex bi te buñ ci naagu benn yoon bépp mesure boo xam ne jël nañ ko nañ ko respecté.